bi sunuy waajur bàyyee théâtre mooy daare ko ak jamonoy tey ñii lañu gis ñu jóge Thiès di def ay théâtre yu am solo ay jeunes ñu nekk fa di liggéey di raxas ay oto ak yu demee noonu mm-hmm. souvent même nga am sa rendez donc garé quelque part donc ñoom ñëw fekk foofu raxasal la ko ku lay jox ay caabi otoom pour nga raxasal ko et mën nga ci dem ba jàngee ci mën dawal agression bi nag pour man police war na am taxawaay bu bare war nañ gën a jalonné bëccëg bi surtout. gis naa ci ñoo xam ne tey dépassé nañu vingtaine bi ba pare ñoom ñu ngi bëgg xalaat que ni waaye Europe Europe Europe rek la ñu gis. Hmm. pour mën a dem fubbali tekki foofu pour mën a teral seen ay waajur. ci prends de lage et tu t'en rends pas tey boo toogee ñu lay jox nga añ nga reer nga ndekki boo xëyee dem entrainement boo ñëwee toogaat ci kanamu télé bi seetaan mais dafa yomb. moom daal nee na bu tëddee jëkkër ji une cur bu dul jeex ci wàllu internet google feebar bi mi ngi tudd urineuse feebar bi ah! urineuse la tudd urineuse feebar la boo xam ne bu góor bi nu mu tudd urimaas bu góor gee tudd urimaas bu jigéen bi tudd urimeuse cant gi borom mooy kooku sëriñ de cooy sant dolli bu waajange Cheikh Saliou mooy kii jërële Thank you.